Baba, baba, baba. Idziemy. Recytujemy, recytujemy. Do gramy. Voy a camerar. sa doom sa talib. mu taxaw may nañ ko sa waaw mu taxaw génn génn. Serigne Touba rek ka dara di génn. Serigne Touba rek ka dara di génn. Serigne Touba rek ka dara di génn. loo xooloon moom sëñ bi def nga ko Serigne Touba rek ka dara di génn. Serigne Touba rek ka dara di génn def nga xoolal. bu yeggee nga tàmbaliwaat yeneen. mais tey ci Touba doo sonn. c'est le maire c'est le maire c'est le maire c'est le maire tàllal leen loxo yi mu ñaanal ko. Serigne Touba rek nga dara liggéeyal. amin amin Mbakke amin Mbakke amin Mbakke amin Mbakke amin Mbakke lu waay bëgg ñëw ci Sëñ amin Mbakke sëriñ bi rek ka jara liggéeyal waaw pour mu